dëgg yàlla moom gars yi xel yu guddi gi xel yu métti lañ fiy daw te aussi wóoru camion yi buñ paamee ay cent quarante dañ ko fiy daw guddi gi te dañoo war di def ndànk parce que fii gis nga choc bi ni mu amee nii démb ci guddi la fi oto bi paan gis nga ni mu dawee nii ñetti personne moo ci dee sur le champ mhm. parce que xel yi ñuy daw mhm. te teg nañ ci engrais rouge mais da koo jéggi romb ko mën ñu ci dara mhm. gars yi moom nañuy war a daw ndànk fii guddi gi baa ñu xool ay yeneen solution yu ñu def ci yoon. oto bi oto bee Touba la jëm camion bi Touba la jëm mais oto bu ndaw bi moom xaw ma Thiès la doon jëm xaw ma waaw mais oto bu ndaw bi oto bu mag moo ñuy daw Dakar Thiès ko waaw waaw ràlli ñuy ràlli Dakar Thiès.